ليلة مولد النبي ليلة نحو الريبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله ومن taala wa barakaatu ñu ngi leen ñu ngi leen di ziar di leen fàttali ndigal loo xam ne daayiratu muqaddamatul xidma ak rawdu raaxi ko amoon te Cheikh Mouhamed Mountakha yeesalaat ko ci dundal guddik mawlit fii ci jumaay Touba euh, guddi gu tedd gu màgg goo xam ne euh, li ci sëriñ bi wax bari na lool euh, mawliduhu muazzamu mubaarakum muxtaramu taazimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi muy loo xam ne sëriñ bi da ko fonkoon lool rëy ci moom lool yar ci njabootam dig digle ko loolu tax sëriñ bi bëgg lool ñu fonk ci bépp barab rawatina béréb bii nga xam ne moom bërëb bu béréb ba ma moo tax euh, ñaari kuréel yooyu ci ndigalul sëriñ bi at mu jot fi la ñuy daje di ko dundal ca na ko sëriñ bi doon dundale loolu la kilifa yi santaane sëriñ Afe Busa mi jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak sëriñ Ahmad Badawi mi jiite daayira Rudrahin ak mbooleem mbokk yi nga xam ne mañ ko seqal ñooy bàyyiloo xel mbokk yi guddi googu ne fas nañ ko yéene dundal ni ko sëriñ bi digle waate ak ni mu ko yeesala leen di ci jumaa ji jumaa ju mag gi muy bis bu tedd bu mag boo xam ne ñu ngi ciy woo ñëpp waaye nag di bàyyiloo xel ñëpp lim laaj ay teggin ak ma euh, guddi gi laaj ko bërëb bi laaj ko euh, ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar bu baax di leen ndokkeel di leen nuyoo fii ci jumaa ji su ngeen gisee jataay bi ngeen xam ne ndigal bàyyikoon ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ngir. ñëw ci daaira muxaddamatul xidma ak daairatu rawdu rayaxiin ci kilifteefu sëriñ ahmad badiyu mu cheikh bu so imam mi nga moo jiite daaira muxaddamatul xidma euh, su ngeen déggee kàddu yi nga xam ne jiitu na it te sëriñ Mbàkke Abdourahman wax ko ngir wax solos gàmmu ak li ci sëriñ bi wax daaira muxaddamatul xidma ak daairatu rawdu am ndigal ci cheikh ahmadul muntaxa ngir dundale ko fii ci barab bi ci jumaa ji waaye ñu gëstu ni ko sëriñ bi daa màggale ñu di ko màggale noonu loolu lañ fas yéene incha allah mu war a doon euh, àllarba bii di ñëw ci woo bokki taalibe yëpp programme bi nag ni ngeen ko baaxee xàmme te daa ko dunde si guddi gi fii noonu la fas yéene wéyee muy incha allahu rabbi suñ demee ba julli gee ba noppi danañu tàmbali njàngum alquran mi muy fukki kaamil ak ñaar muy tolloo ak guddik fukk ak ñaar gi suñu noppee incha allah euh, danañu tàmbali njàngum xaside mi Eh, ci ki koy ubbi mooy eh, sëriñ Cheikh Gueye Mayib dana jàng su wente une jotee su noppee eh, Serigne kuréelu daayira Muxaddamatul Xidma muy tuut tànk yi danañu jàng bu noppee Serigne Bolle Mbay dina jàng ba onze heures bu onze jotee nag ñuy amal benn waxtaanu diine woo xam ne Serigne Mourtada Sylla moo koy def mawdu bi ren di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni nga xam ne noonu la doon ak ñu wuute woon ak moom. muy waxtaan wu am solo woo xam ne suñ Mourtada Sylla Abo Marème moo koy def su min wi sero jotee nag incha allah rek ñu fas yéene tàmbali nag dundal guddi gi muy taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi daana ko màggale noonu muy barsan jiyu bi nga xam ne moom lay moom la def te sëriñ Ahmad Badiyu di ko jiite ak sëriñ Afiya Buso ak sëriñ Abibullahi Jatara ak ñetti kuréel yi nga xam ne nag mooy kuréelu daayira Muxaddamatul Xidma muy jës bu ak mooye bu muqaddimat suñ jàngee buntu barsan jàng fukk bayit ak ñaar ci jës bu jàng ko ci mooye bu jàng ko ci muqaddimat noonu lañ koy defee incha allah ba julli ba julli fajar mu ànd ak tamit ni ko sëriñ bi daa dundale ci di tuur ay xet gu neex parfum ak cuuraay ni ko noonu tamit e, bernde yi nga xam ne day ànd ak moom ci wàllu naanu yeeg e, ataaya ak meew ak café ak ya aju yëpp ak gato yeeg yi fii ndaw ku ndaa yëpp macha allah kon ñi ngi woo bokk yëpp rek ni ko sëriñ bi waxee ñu ñëw rek te indaale ay teggin te fa seen dundal guddi gi te taatan suñuy ndab te ñaan suñu borom mu nangu te defal ñu tawféex bi barakati xaadim rasul su ko defee bokk yi nag ñu ngi fàttali dundal du di guddi gàmm ni mu amee solo ak dépassé ci sa wërsëg sëriñ bi nee na fa kullu man an anfaqa fi di mawlidihi l musarrafi maalan bi xayri fi walaw bi xadri dirhami kon képp koo xam ne bëgg ngaa barkeelu ci guddi gàmm gi moo xam da ngay togg ay ñam wala da ngay wala da ngay barkeelu ci lu ci dem soo ko defee rek ci numéro 77 686 13 13 Wave la Orange Money la euh, sa barkeelu dana ñëw ci biir gàmmu kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp kuy indi ñam tamit wala nga indi ak naan soo ñëwee nga jébbal ko ndaw yi nga xam ne ñooy ndaw yi daari mu xadimatu xidma bu ñu seddale ko ngir jumaaje barab bi ñu sàmmonte ak cet gi asalaamaaleykum wa rahmatullah laylatu mahwi taabi wa tuhri taasmi